ki waxtu ak juróom di simili le président de la république Macky Sall ex de de dëkk bu Touba ni ko général des Mourides Digléon, woon mooy ñu tertul ko ganam gogu président de la république Nion waa kër Serigne Cheikh Abdou Bali des ñu ci image